Bienvenue sur Salam Vision. mooy Salam Vision yéen ñi xamante ni yéen ngi koy seetaan dama lay diggal nga teel a dem gaaw abonné ci Salam Vision dama ne bàyyi nga leen ñun ak yéen dañuy ànd dem Touba sol suñuy daay duggal leen ci bépp bu nekk Touba dama ne yéen ñi bëgg xam. mbokk yi nekk Touba Salam Vision mu ngi leen invité tey sama gaay dama leen foofu dina xumb dina neex ñun ak yéen ci biir Touba rek abonné gaaw waral la ci biir Touba waral la caax-caaxu seen Touba yépp ak lu waral sababu magal gi lépp soo ko bëggee xam yow mi xamante ne dangaa toog biir Touba munoo dem sa tànk dafa woyof yébal ñu ñu ànd ak yow ba fa nga bëgg dama ak Salam Vision tout est facile tout est possible Salam Vision asalaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokk àdduna salaamaaleykum bu ngeen ñu gisee tey ci li nga xamante ne tey jii mooy la fi am mooy lan safar safar di màggal Touba màggal Touba di kan Serigne Touba. tey ñu ngi biir Touba tey jii ci li nga xamante ni tey mooy si jaar-jaaru Serigne Touba war nañ cee ñëw ci jaar-jaaru ki nga xamante. kon nag sama gars yi dalee ñuy suivre bu baax a baax fa ngeen ñu suivre ci Salam Vision Salam Vision tey ñu jógee ba Dakar tey ñu ngi biir Touba fa seene jëflante ak yéen ci li nga xamante ni mooy safar bi nga xamante ni mooy màggalu seen Cheikh Ahmadou Bamba tey jii fii ci biir Touba tey dara du sedd. ak lan Salam Vision tey la ñëpp di jom sama réalisateur may ma tuuti ñu am fu ñu jëm tuuti ma am la ma leen jëlal ngeen xool ko baax jërë ñu suivre ci biir salaam Vision. ba léegi yéen a ngi ci biir salaam Vision ci li nga xamante ni mooy ëttu diine gi tey ji fan ci biir Touba Mbacké tey dafa am koo xamante ni tey ji moom laay janoo ak moom. muy mbay mi nga xamante ni tey moom laa war a ànd ak moom tey ji wan leen li nga xam ne tey moo nekk tey ci biir Touba ak lan dama koy bàyyi dugg si nijaay fii moom moom dafa ñëw rek tellement dosé gis ngeen ko de ak ay veram quoi xam nga di ma wan ne essai moom a gën a tàng moom laa war a jàkkaar lool war a jëflante ak yéen ci li nga xam ne tey moom ngeen soxla ci seen télévision bi nga xamante ne mooy Salam Vision nijaay yegg si nañ macha allah daanaka boo xoolee nit ñaa ngi dox ambiance bi neex na kenn Serigne Touba ci taxawaayu Serigne Touba tey ji fi nga xam ne mooy Touba salaam Vision tey lan la war a indi loo xamante ni mooy téléspectateurs yi koy seetaan macha allah bi ma ñëwee tey euh, am contentement bu rëy mu nekk loo xamante ne tey woo ngeen ma pour ma ñëw euh, jaakaarlu ak yéen mhm. ma ànd ak yéen ci liggéey bi mhm. mu nekk mbay Foy la voix d'or mhm. tey jii li may wax foofu Touba yegg si nañ fi alhamdulilah li ma fi gis dafa jéggi dayoo te àgguñu fenn demaguñu fenn pour man jarul sax ñuy demaat feneen ndax gis nañ li xamante ne war nañ ko gis ci porte bi kon suñu duggee ci biir lañ la ñu war a gis njëriñ lu am fulla lu am fayda jar jaar siñ Tuuba kon donc tey jii damay wax ne macha allah ba ah, ñu dugg ci kanam incha allah dinañ gën a leeral gars yi affaire yi nu muy demee voilà maa ngi lay remercier yéen a ko dégg ci li nga xamante ni wax na ko fan lañ jëm ñu ngi ci biir Touba ñun ak yéen fu ngeen ñu séentu rek suñ takkandeer a ngi fa te suñ takkandeer képp ko ca taxaw rek jëmm yaa fa kenn du waa Salam Vision fii mais am na koo xamante ni moom dama koy tooñ tuuti. ba léegi ñu ngi ci rond-point bi nga xam ne moom mooy rond-point euh, Jannatu Maxwa war a jëm fi nga xamante ni mooy euh, Ndaamaatu juge foofu noonu tamit Ndaamaatu tamit jëm biir Touba ci li nga xam ne mooy jumaa ja jóge fa tamit jaar fi nga xamante ni mooy forage tey fi ñu war a jëm tey moo bari damay bàyyi ki nga xamante ni moom laa jalool ndax tey damaa jaloog koo xamante ni dafa dégg séeréer dégg olof dégg français dégg anglais dama koy bàyyi mu ñëw tuuti ñu am benn janoo bu ndaw boo xamante ne ci lañ nekk tey ñu ngi ci rond-point Jannatul Mahwa tey jii tey boo xoolee fii maanaam Touba dal gi dal nag fi mu nekk nii dal na oto yi xatatul ñëpp mais nit ñi moom bari nañ macha allah mais tey jii taxawaayu biir Touba fi mu nekk nii nii nii ak ñi nga xamante ne ñoom lañ war a def lanteel nga foog ñu assaini taxawaay bi léegi lan la war a doon. léegi euh, bi ma nuyuwaatee gars yi. Mhm. taxawaay bi euh, maanaam taxawaay bi il faut nous sommes euh, vigilants mhm. ñu teey mhm. ñu dal ñëw ci jàmm mhm. bu ko defee ñu mën a ñibbiwaat ci jàmm ndax Touba aajoo na li xamante ne mooy dal soo fi ñëwee li la fi indi nga def ko ziare dem jumaa yi ziare xam lan mooy lan moo waral euh, màggal bi bu ko defee ñun dinañ mën a xam lan moo ñu lan ñu fi indi kon donc boobu dinañ xam lan moo ñu war ci biir Touba lan moo waral suñuy tànk yi ci biir Touba na ñëpp xam ne maanaam ziyaare màggal bi tey moo ñu fi yóbbu du leneen bu ko defee maa ngi leen di jaajëfal encore une fois voilà loolu rek moo nekkoon wax ji voilà tey ñi nga xam ne tey jii maanaam dañu jóge ba Dakar jóge Saint-Louis ñu jóge Mbour ñu jóge adduna waaw nit ñi fu dee la ñuy jóge mais te am na ñoo xam ne maanaam ñoom jàpp nañ ni màggal Touba gi lenn la mooy benn lekk pare ci quoi dem xam nga da ngay gis ko wax day jógee fu sori ñëw mais bu nekk woon maanaam jumaay tubaab bi sax noonu la mel jumaa sax du la mën a sax jumaa ji ni mel parce que bu ñëwee maanaam dal na fu neex nekk na ci kër mu ngi am kilim mu ngi lekk mu ngi naan nga jàpp ne kooku doon tamit moom tolluwaayam ci màggal léegi yow loolu lan lañ ko war a mën a gisee léegi ñoom ñooñu damaa yaakaar ne ñoom dañoo xamul wala dañ leen jàngul parce que je pense que ñi xamante ne xam nañ lan mooy màggal suñu mhm. ñëwee fi jógee fu sori muy Cees ak muy Mbuur ak muy feneen ak feneen soo fi ñëwee li la war mooy ziyaare am ñaan yu bëri bu ko defee yàlla mën a nangu sa ñëw bi mhm. Sëñ Tuubaa mën a nangu sa ñëw mhm. bu ko defee loolu képp ku xamante ne ñëw nga fi li la a li xamante ne aajoo nga ko mhm. mooy lu baax kon donc nañuy ñëw ci jàmm ñibbi ji jàmm jël ñuy lu baax ñibbi ak moom voilà kon tey jii de yéen a ko dégg ki nga ne tey moom laa janoon koo xamante ne ku bëri xam-xam la koo xam ne kàngam la ci mim réew waaye nag dafa nekk xale boo xamante ne yàlla bu ko ca dugg loolu su ma ko waxee rek mooy macha allah parce que boo gisee ma jot ak moom mooy dafa am lu nekk ci moom. ah grand ba léegi mu ma doon euh, mu ma doon wax sànq naa fi sànni séeréer. voilà moo séeréer bu ko defee. mi kañ ñëpp mi ziar ñëpp. njor ki deedu saafen jën weedu na am mbay fay la voix d'or bu jes ay i kontaane du bu baax a baax boo ɓeɗin touba machallah bo ɓeɗin touba bo ɓeɗin rond point ni kad euh, juma yakka léegi ɓo ɓeɗi pour ɓo haɓɗiɗ ɗum bene émission ne hamantene no reportage si hamantene ɓo caɓɗi goƴ tubajen ɓo wil tubajen a mbo ɗuga innana ɓo ina ɗi gaɗa ɓo teɓɗa machallah a ah, sin sin samedi samedi naa ne dina ko yobbu ci séréer ya il faut mu dégg séeréer. man damaa voilà voilà non il faut mu dégg séeréer. dama làkk làkk séeréer bi dama xawoon duroog anglais quoi. voilà non ngay di bayee ci kii mbay de mbay de jees mbay de kulu kulu saafen kon donc monsieur le maire Mamadou Ndione seka bo boobi hay maire in na ɗi sekka ndur seket bo boobi hay ndem wo pulondina machallah boobi rafetluwa corkide ɗu ɗu jenna machallah jërëjëf kon baax na séeréer si pël bi tukulóor bi ah lanti soose bi bambara bi saraxule bi tey ñëpp a ngi biir Touba tey làkk bu <laughs> te lu la jaaral ci lakk ak Salam soo rek. ko gisante la yàlla. waaw kon daal maanaam daal képp koo xam ne moom bëgg nga Serigne Touba te fonk ko rek ngalla lim digle mooy sant ko yàlla ci bernde jàng alxuraan xasida loolu la fi digle tey ji ñu bari tey jii dañuy jógee dëkk ak dëkk ñëw ba biir Touba jàpp nañ ñu màggal Touba lekk kese la ak naan ak nekk ci clim ak seetaan télé tey jii ñoo xam ne tey dañuy jógee tey jii ba dëkk dëkk mm. ñëw ba biir Touba mais boo leen laajoon tey jii jumaay Touba ba tey peinture ba nam mel tey duñ la ko nga foog ñu ñoo ñoo seen màggal lan la waaw xam nga ndeysaan ndeysaan xam nga ku nekk la la fi indi mm-hmm. daanaka ku xam Serigne Touba mm-hmm. ak na mu bëgg alxuraan nu mu fonk yàlla fonk yonent bi te bisam bi tey lépp loo xam ne moom la fi diggee la mi jàng alxuraan xas bi da yëpp nga xam ne moom la islam digle kullu rek kullu nga julli kii ko ma sax ngay murit sax mais nga jullit rek mhm. boo fu ñëwee war ngaa doxee ci loolu macha allah waaye mhm. am solo ndax boo xoolee ñi fi ne sang yi fi ne ay comme ku doon ay Cheikh Béthio mhm. daanaka ñoom ñoo ngi berne te berne jox nit mu lekk rek loolu tiyaaba googu xam ne lan moo waral ñëw yu Touba bi tey ak nan ngeen gisee seen ñëw bi ak yoon yi ak bi ngeen fekkee Touba lan nga ko gisee yow ndeysaan ñun de ñi ngi siyaare ñëpp mhm. di nuyu mbokki taalib yëpp di ñaan Cheikh Modou Mountakha mu yàgg bi loolu te wér mhm. di siyaare ñëpp rek di nga xam ne ñun ñi ngi bokk ci Hizbut Tarqiyyah Darou Khoudoss mhm. sëñ bi ku ñu ay gan fii ay gan yu jóge Mauritanie muy gani naar yi jóge Mauritanie ñu yor leen fi di leen toppatoo nga xam ne depuis quinze safar ba tey ñu ngi fi war a war dëppaat ay vingt vingt et safar waaw nga xam ne lépp ngir mbëgg ngir sàggu ci mbégum sëñ bi ak li sëñ bi wax ci màggal gi nim mu ko wax lim ci wax ne ñu teral la ko ay ganam fongal ko bisam bi ndax ku ne xam ne màggal day bis boo xam ne mboolem lu nit di sàkku ci am murit bis bi moo la ko may du ma ko yemale ci am murit sax dama naan mboolem lu nit di sàkku ci lu baax mboolem lu nit di sàkku ci mucc ci lépp ci mucc ci sawara bis bi ko may. kon daal macha allah tey jii Tidiane Laayar Xaadar Ñaseen actes yi ñëpp a ngi bi tubaab mais mënoo cee xàmmee kii lii la kii lee ci taxawaayu màggal gi tey ji euh, ci li nga xamante ni mooy ëllëgu ëllëgu magal gi maanaam parce que nee nañ tam màggal tuba ba bis ba ba bis ba delluwaat gi la 18 safar ñëpp tey ji dañuy jug xam nga di benn nit ñi di togg yi café di def lépp léeg da ngay gis tiijaan boo xamante sax mooy gën a bëgg sax murid bi sax sëñ bamba nga yaakaar ne loolu liggéey bi nga ne sëñ bamba liggéey na ko ci tolluwaay ak digganteem ak yàlla suñu borom est ce mhm. bi mhm. liggéeyal ko liggéeyal ko nga jullit ngir murid kat da ko liggéey nga jullit yëpp ndax def naa irham jama a waraa moom bawul kenn mais képp ku gore rek ku gore laa wax gore mu nga doon chrétien beeg murid beeg te am xar lépp lépp da nga wasan sëñ Touba ndaxte kon nga sant ak sëñ Touba alhamdulilah la Assane Assane yaa ngi jóge boobu ngi jóge Thiès Thiès macha allah kontaan nañ la fay amiin bokk nga xam ne bis bi daal mboolem lu ci waay def ci lu baax na nga ko xeeb te gën ko yokk mboolem lu ci waay man defal te xam ne sëñ bi moo waxoon ne bis bi bu dikkatee waxoon ko sëñ majjaw baax wax ko sëñ Balla Faale Jang ak ñeneen ñi ko wax ci mañ ñi neen bis bi bu dikkatee li ko ginaar ba ci giléem lu ci waaye man nang ma ko ci defal ah, ndax bis bi mooy sama bis te ko ne xam ne ne borom Tuubaa wax ne bis bi mooy sama bis te ab bisam kenn xamul fan la toll ci suñu borom kawee na yoo xam ne làmmiñ sax mënu ko tudd kon bu ne bis bi mooy sama bis mboolem lu waay def ca lu baax gën koo xeeb gën ko yokk te yaatal gan ñi ñun ñëpp ñu ubbil gan ñi seen kanam yi leeral leen suñuy bëti xol ak lépp teral leen buñ dikkee ñu tertu leen ngir jëmmi sëñ bi rek yéen ñu jëmi ñi leen sant yi nga xam ne fi ngeen taxaw nii di laaj nit ñi mhm. ak gan ñi ñëpp ñuy dugg ci dëkk bi ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen ñaan suñ mi gën leen taxaw rek te gën leen a sàmmal boppam barkeb Cheikh Mamadou Taxaw noo gisee maanaam euh, lan ngay wax ñii ñëw ak lan ngeen di yedd maanaam lan ngeen di wax euh, ñi nga xamante ne ñu ngi dugg si Touba lan mooy seen taxawaay lan nga lan nga ci war a wax ci loolu waaw asalaamaaleykum ginnaaw bi ma nuyoo mbokk yi di nuyu seen site internet bi nga xam ne seen seen télé bi waa Salam Vision di leen nuyu ñoom ñëpp di jox seen wàccuwaay bu baax a baax comme ni ko jëriñ waxee rek sëñ Abdou Lahad ñun la waa Hizbut Tarqiyyah bu Daaru Xuddoos ñoom lañ teewal fii nii ñun ñooy liggéey fii nii si kër Serigne Touba gi nga xam ne moom mooy jàkkaarloo ñun ñoo fi ñooy ñooy berne gan yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoo leen di berne si ay togg ak ñam ak lépp ñoom ñoo ñoo leen si kii daal ñoo leen siy gunge ba ni màggal gi jeexee incha allah di ñaan yàlla mu mu mu may ñu ba lépp luñ si bëgg sëriñ bi mottali ko waaw seen question bi comme euh, lan la wax gan yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ku ne xam na ne Touba dëkku lislaam la dëkku Cheikh Ahmadou Bamba la euh, dëkk la boo xamee euh, dëkk diine la am na yoo xamee wax dëgg fa yàlla war nañ kaa moytu comme ça ñi nga xam ne ñuy jóge si yeneen dëkk yi nga xam ne mi ngi si euh, réew mi comme région yi am na yeneen yu fa xew yoo xamee ne si nii xewut fii nii si Touba te sëriñ bi da ko fiy bañ ñu leen di ñaan bu ñëwee incha allah ñu jëm kaa wàññi bu dee sax dañuy dem feneen ndax Touba am na yeneen dëkk yu ko yoo xamee ne si nii loolu noonu ñu fay aaye bu la neexee ñu def ko fa waaye daal fii nii moom dëkkub Cheikh Ahmadou Bamba te da koy bañ. boobu ba léegi euh, yëpp bépp xalifa boo xam ne jaar na fi da mi ngi si taxaw. taxaw si loolu noonu pour nga xam ne euh, du fi am. kon ñoo ngi leen di ñaan mm-hmm. yooyu noonu ñuy def yoo xamante ni sëriñ bi da koy bañ te bëgg ko si dëkkam bi ñu ñu ñu ñu ñu wàññi ko. waaw te te nga xam ne euh, te te di wax tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi nekk si biir kër yi Touba yi nga xam ne ñoom ñooy dalal gan yi ñu yaatal gan yi yaatal leen ndax màggal gi loolu la laaj màggal gi sax daanaka am na ñu naan woote wuñ sax ay jàng xasida yu ma xamul màggal gi berne leen wax yaatal nit ñi ndax ay berne moom la sëriñ bi woote. bu la neexoon sax mën nañoo bañ a jàng xasida dañoo dañoo dañoo xër rek ak bëgg sëñ bi waaw di leen jaajëfal bu baax a baax di leen sant bu wér a wér a waaw di. ñu am contentement bu rey léegi yéen a ko gis noonu waaw moom moom daanaka trondoom la seet si quoi trondoom. kon nag loolu tam dañ ko ci gën a jaajëfal di ko di la wax moom sa télévision baa ngoog muy Salam TV wax ngeen gën koo suivre macha allah moom téléphone nekk moom macha allah mu ngi nekk ba Dakar Dakar waaw waaw dana ñaan rek ci baax baaxu Sëriñ Tuubaa ci bisu màggal gi dañ Sëriñ fi ñu dégg télé yu mag yi ndax daanaka fii moom leen kese am solo jëlal la nga war a jël wax la nga war a wax yam fa nga war a yam boo fa rek ca kaw ca kanam macha allah kontaan nañ ci yow jaajëf ويسرا كل ذي تعسيرا نبل لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا ودمرا كل